siyaare seex muntaxa mel na ni dem nga siyaare seexu bamba képp ku dem siyaare seex muntaxa mel na ni dem nga siyaare seexu bamba seex muntaxal basiir ku fonk Serigne Touba ku fonk waa këram ku fonk kitaabulaay Cheikh Mountakha de tedd na Cheikh Mountakha kuy jaamu yàlla ngi kuy def lu baax ngi ku fonk mbokk ngi Cheikh Mountakha tedd na Cheikh ku daa kuy jaamu yàlla ngi nii kuy def lu baax a ngi ku fonk mbokk ngi Cheikh de tedd na Cheikh Mountakha ni mu bëgg Serigne Touba moom yombu am na ngërëmal yàlla ak ba am ngërëmal Cheikh Bamba ak baayam ba bakum ngërëm nga am ngërëm fa yàlla ku ko liggéeyal faw yàlla fay la asalaamualeykum wa rahmatullahi taala barakaatu mbokk yi ñuy seetaan wala ngeen di dégg suñu kàddu ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di rafetlu ànd ngeen di ànd ak ñun waaye bu ngeen gisee jataay bi nag xam ne ndigal bàyyi na ci sëriñ Touba sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér jaar ci sëriñ Ibrahima Xalilullahi Mbacké moom si Amadou Fadal yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér waaye agsi nag ci daayira bi nga xamante ne bi moo di Touba Argentine ak mboolem fédération bi nga xamante ne bi moo lëkkale daayira ci bokk ñu feggoo nag ak Serigne Mortala Sall di jëriñ joo xamante ne bi dootuñu leen ko présenté gannaaw taxawaayam ci liggéey bi waaye Serigne Dame Cissé mi nga xamante ne bi ndigal loolu di bis bi ñuy waajal muy ziar boo xamante ne bi mboolem fédération bi ak daayira yi bootu ñoom daañu bàyyi ko ci réewi Argentine yi ñëw siyaare Serigne Touba waaye jaar ci seen bunt nag mu di Serigne xalil moom Cheikh Ahmadoul Fadal yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér Serigne Dame Cissé mi ñu fegal kon firnde la ci. laataa ñuy sori nag dañuy yëkkati kàddu gi jébbal ko Serigne Dame bu ko defee mu soññee ci li nga xamante ne bi moo waral liggéey bi te dajale ñu fi waaye bu ko defee itam ñu yëkkatiwaat kàddu gi jox sëriñ Mor Talla Sall mu tëj soññu taalibe wax itam ci wàllu programme bi ak niñ ko fas yéenee terale niñ ko fas yéene tërale atum ren mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax ci fii ñu baaxoo nuyoo muy kër Cheikhul Khadim gi ci jumaa ji nuyoo bi ak ziar bi nag ñu ji jiital ci saahibul fadila Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di ñaan yàlla sunu borom mu yàgg fi loolu te wér ak njobootu Serigne Touba gépp ginnaaw loolu ñoo ngi eh, ànd ak eh, ci eh, woote bi ziar bi Euh, sëriñ Moutara Sall mi suñu wet di jëwriñ Daaru Salaam waaye di jëwriñ ci fédération bi di commissaire compte ziar bi euh, di commissaire compte fédération bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di jiital ci nuyoo bi nag euh, jëwriñi jotaay bi wala jëwriñi fédération bi mi nga xamante ne ci ndigalam lan tooge fii nag ci ndigalam la ñuy waxee muy sëriñ Yakhouba géey ak sëriñ Bamba John ak sëriñ Bamba Ñang mi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk mboolem fédération bi nga xamante ne ñoo nekk Touba Argentine nga xamante ne dafa ëmb daayira sëriñ Touba yëpp ya nekk ca dëkk ba ak mbooleem këri Serigne Touba ak mbooleem buntu këri Serigne Touba ya fa nekk muy fédération ba fa nekk ñoom ñoo ñoom ñoo ŋànk euh, bopp ba maanaam ñoo nekk ci bopp bi ñoom ci seen bopp ñoom ñoo nu yónni ginnaaw bi ñu ci amee ndigalul euh, sëñ Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk ci bis bi nga xam ne mooy bisub ziar bi muy la 14 incha allahu taala 14 septembre bii ñëw muy àjjuma bii di ñëw bu delsee ba delsiwaat incha allahu taala waaye xam ngeen ne daanañ ci ànd ak sëñ Ibrahima Khalil Mbacké di ñaan yàlla sunu borom mu yàgg fi loolu te wér waaye ren danoo dafa am ngant danoo jox ngant ndax dafa war a génn dafa génn euh, Sénégal moo tax euh, bis bi mu wax nu ne kon man ngeen a dem kon loolu tamit ci ndigalam lan ko defee xalil it moom lan fi la la la noonu lan ko noonu lanu ci joxe ndigal ngir ñu man a dem ci ziar bi kon daal ñu fas yéene ko defe rek fii ñu taxaw ak yéen incha allahu ajjuma bii di ñëw bu delsee ba delsiwaat képp koo xamante ne yaa ngi dëkk Argentine wala nga nekk Argentine wala nga nekk Touba Sénégal wala nga am mbokk moo xamante ne dafa nekk ci Sénégal wala Touba ak li ko wër ñu xamee ko ne la 14 incha allahu taala euh, ci suba gi la ñuy dajee fii ci kër sëñ Tuubaa gi ci jumaa ji buñ fi dajee incha allahu taala ba euh, ñëpp yemb ñu mën a euh, teewal ziar bi ziar bi nag ne ko naka jekk at mi naka jekk noonu lañ ko daan taxawee ak mboolem jullit yi mboolem taalibe sëñ Tuubaa yi nekk Argentine di liggéey boo xam ne liggéey bu yàlla gërëm la muy liggéey boo xam ne liggéey la boo xam ne liggéey taw tawfeex la liggéeyu xéwal la boo xamante ne ñi ngi ñaan yàlla sunu borom ñu yàgg koo teewe ay déwéni déwéni déwéni déwén yàgg fee yàgg yàgg ko fi indi yàgg fee fekk sëriñ bi tan daje cee ngërëmul sëriñ Tuubaa li mu wax ne waq di xaw a ay jël la na daamu fi xidmati waxab lahum maaraamu barke Cheikhul Khadim kon xanaa dañuy gàttal euh, euh, kaddu yi rek wàccee ko fi jox sëñ moo Talla Sall mu leeralal leen ci euh, programme mu ziar bi incha allahu taala aousu billahi mina sheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin suma salaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin makin mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi yëpp ñoo ngi leen di nuyu seen tur sant di leen ziar bu baax a baax di leen xamal ni nag jataay bi bu ngeen ko gisee rek di ngeen xam ni comme ni ko suñu mbokk yi fi jaar waxee rek moom am na lu nuy fàttali ñun ñëpp mooy ziar général bi nga xam ni baaxoo nañ koo def fédération Miftahoul Nasri bu Touba Argentine ci ndigalul Serigne Yacoba Gueye ak Serigne Bamba mi nga xam ni moom lañ toftal ci moom tey ji nag ñu ñëwoon ngir fàttalente ko ak mboolem mbokki taalibe yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci réew mi te am pos pas ngir ñëw ci booba léegi nag ñoo ngi ci jox ay jéego ngir eh, nu mu gën a jàppandee ba yàlla mi dal taw def na comme noonu ko Serigne Dame leeral rek noonu la demee incha allahu taala bis bi noo ko jàpp la 14 incha allahu taala la 14 septembre bi ñu ne tombeek ajjuma su ko defee ñoo ngi ko defee fii ci résidence bi ci kër Serigne Touba gi su ko defee bu jullee jumaa ba pare rek ñun ñëpp ñu daje fi xam naa loolu moo nekkoon information bi ginnaaw loolu nag ñu ñu nuyu suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal mooy Serigne Dame Cissé moom yaakaar naa miin ngeen ko ci liggéey bi nekk euh, jëriñu fédération Darou Khoudoss ak suñu mbokk mii di Serigne Mor Diakhaté moom it noo ngi koy Serigne Mor Joxaane moom it noo ngi koy nuyu baax di ko siyaara ak suñu jànkatu xasida bi di Serigne Ndiap mbay mooy noo ngi koy saare baax a baax di nuyu mboole mbokk nga xam ne ñoo fi amoon yéene teew te mujj nu fee teew kon daal yaakaar naa kàddu yi moom jur guddal su ko defee daal ñu leen ci soññi di ci soññi mboolem taalibe yëpp di ñaanal nag sëriñ bi nga xam ne moo tax ñu di ko def mu nungul ñu liggéey bi sëriñ Mouhamadou Mountakha tamit ñu ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ba lim yéene ci yoon wi lépp suñu borom may ko wér kattan mu àggale ko ni mu ko bëggee kon xam naa comme jataay bi xaw na xat bu guddee du neex a déglu dañuy gàttal foofu kàddu yi rek ba beneen yoon incha allah taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi sëriñ moo Talla Sall jërëjëf sëriñ daam Cissé kon mbokk yi bis baa ngi noonu war a nekk fukki fan ak ñeent ci weeru septembre wi ñu nekk ci barab bii nga xam ne fi la ñuy yëkkatee ay kàddu di leen ko fàttali muy kër sëriñ Touba gi feggoo ak jumaa ju sell ji kon ñu ciy woo mboolem ñi nga xamante ne bi ñoo bootu ci fédération daayira Argentine yi fépp fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di soññ di leen fàttali bis bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.